thank you nga ba pare xam ne cër jooju am nga ko ba pare da nga war a tourné waat ñu lay jox cër boobu ndax doomu aadama moo lay jox cër moo lay yëkkati moo lay teg ci kaw kon da ngaa war fonk doomu aadama ndax doomu aadama kenn du mu moo tax nag baax boobu cër boobu lu ñu ci ko may dund nit ñi la rek ndax yenn wuuma lu ma doon yàlla nag mooy maye daayira booba nit ñi bëgg laa nga nekk loon loolu mayee yàlla la lu yàlla mayee la dañ koy nangu waaye taxul tamit ma gën kenn ñu gis ne li nga fi toog bëriwul Dakar waaw man xam nga nag euh, mbay man doomu doomu doomu Thiès laa Thiès laa juddoo ba ma amee trois ans lañ ma jël yóbbu ma Dakar ma nekk sama kër maam foofu sama benn tante. màggee Dakar foofu nga xam ne mooy zone A. zone B noonu ak diggante moom ak euh, Poyen. liggéey ba léegi maa ngi Dakar ndax samay business foofu la nekk foofu la am mën a koccaat waaye lu ma am na indi ko Saalum. Uh-huh. voilà ah ñu gis coow li fa bëri woon trop mais <laughs> soo ñëwee bii ah, mooy loolu quoi. coow li bëri woon trop nga yëngal dëkk bi waaw euh, mais. <laughs> mbay ku yëngal dëkk bi ak lan laa yëngalee da ngay yëngal dëkk bi si affaire euh, affaire service bi ay affaire politique bi mais suñ la fekkee fii euh, da ngay gis taal bi la joxee respect. ah ñu yëngal dëkk bi de da koy wax ah. ñoom xaadim temps wala sama wax yaa ngi mer de ñu yëngal ah. man yëngaluma dëkk bi man damaa toog gis lii dëgg ma wax dëgg ah. dëgg nag ku koy bañ ci Sénégal xanaa nga gas suul euh, mbay dama lay wax benn affaire nga xam man jeune marabout laa boo xam ne aw ma complexe ci kenn mm-hmm. baax naa lool yaru naa lool waaye nag aw ma complet nga sottanteeg ñoom xalaat. ñu jegale ñu jege nga jegaleen loolu mooy li am solo kon yow da ngaa contre sëriñ yi nga xam ni euh, dañoo toog jël seen i kurus ak jël seen kii dañu dem di en ah, wékku si addiya si addiya man bañu ma sëriñ bu téye kurus xam nga lu ma bañ bañu ma sëriñ bu jël addiya ndax man am naa droit ne ba ma juddoo ba léegi musuma tukki laaji addiya am naa droit ne ku may jox addiya mën a ko jéggal naa la ko loolu sama philosophie la te loolu laa gëm mais damaa gëm ne man ndaw bi damaa war a dem daani sama doole di toppatoo sama business mhm. waaye nag gëwuma sëriñ boo xam ne da ngay toog rek tey sa kuréel da xoggali ko ne doo ak saytaan mhm. bi bëgg leen def ay mbaam man gëwuma loolu mhm. loolu am pour jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ yaa jëf tuur léegi ma lekk naa nangam na ko zoom ma zoom ma ba nga gis ma damay wax ne man aw ma lu may stressé ci àddina gis nga dëgg moom ku ko bañ pour MC mm-hmm. Niass di ko wax ci Sénégal mm-hmm. di nga noppalu mm-hmm. te loo wax MC Niass xamal ne MC Niass déglu ko safu ko lijjantiwul loolu. su nit taxawoon fii ba suba di ma wax wax ju bon barke rasulullah jéggal naa ko te yàlla tax. parce que fu nekk nii àddina bi dafa jeex ba pare suba mën naa xëy ñu ne dee na wala dund na soo lekkee ba suur sol sa yére yu baax. yor sa oto bu baax. waaye waaye ku la tooñ ne ko jéggal ndax li gën a métti ci àddina euh, yàlla jox na la ko. Mhm. loolu rek moo am solo. Mhm. waaw ah jërëjëf looy tàggatoo. lu may tàggatoo xanaa di la gërëm ni nga ñëwee Medina Baye fekk si ma. ma tooy ci sama ruq bi nga koy xeeb. ànd ak ñëpp ñu fi ñëw. yegg si toog man. lii la ñuy wax sëriñ. Mhm. damay wax ne sëriñ du malaaka du short. rond point ja pentola bi ma toog. nit dañ naan la dañ naan kii su dee dañ naan doom bàyyi na sax mais dañ koy werante dañ naan lan moo tax mu nekk euh, euh, doom bàyyi na ba pare di oyof nii. mais lan mooy doomu Baye Niass Baye Niass lam am moo ko liggéeyal boppam wër àddina tasaare lislaam def lépp est-ce que man li Baye Niass doon dama ko doon moo ma jur mais ñun dañuy jéem ci barkeem la ñuy jëlee dañuy raamal duñu sukkal est-ce que loolu ñun ñoo ko liggéey ñun liggéeyuñ ko kon nit ki dama bëgg nit ñi bàyyi man maay doomu diw man maay doon diw nekk di diw moo ko gën man nekk di diw ko gën gis nga àddina gi kenn jar jaay maqaama keneen ku nit ku nekk nit la waaye soo baaxee yaru rek nit ñi topp la gis nga man nii soo biis bi ñuy wax ak affaire yooyu man je m'en